na ma ñëw ci jigéen ñi mun naa dëgg naka waa Pikine kontaan naa lool ci sa euh, borom kër ko mën liggéey euh, waaw naa ci moom. coach sa sa sa nuyoo comme nee nga du yegg euh, <laughs> dañuy daal di ñëw léegi léegi ñu dem ci ko alors mi ngi noonu ginnaaw liggéey bu rafet bi nga xamante ni Fane Ndiaga Yaram def na ko dañuy daal di door waxtaan bi ah tey moom actualité sportive bi je pense que benn lay nekk muy nouvelle bu naqare bi ñu am démb ah euh, génnub àdduna ki nga xamante ni mooy Pape Diouf nekkoon fi président bu OM euh, Olympique Marseille nekkoon journaliste aussi. waaw waaw dëgg euh, fi nga fi nga daanee laay mhm. koy njëkk jaal rek. Mhm. Euh, vraiment euh, le monde sportif. Mhm. Euh, parce que tamit ñun sport bi coronavirus bi ñun la njëkk a laal. Sénégal premier décès mu nekk un un imminent sportif muy Pape Diouf. kon nag muy perte bu rëy. Mhm. lu tax ñu naan perte bu rëy foofu laa bëgg taxaw un peu. Mhm. te lu tax ñu naan perte bu rëy. dégg nga pour le monde sportif. Mhm. Euh, Pape Diouf bul na ñu ci jàppali ñu ci bari Sénégal ñu ci bare Sénégal ñu nangu nekk journaliste sportif moom moo tax dañoo xool ci moom lu tax dañuy xool bu njëkk ba Mamadou Koumé di xaritam euh, boo xam ne ñoo doon ànd ñoo doon nekk du ma bàyyi may euh, du ma bàyyi may fen xam naa mu may déglu mais gis nga bu njëkk ba euh, boo génnee ay école journaliste ba ñëw doo nangoo nekk bu ñu nee sport doo ko nangu jël bugguñu ko woon billaahi boobu taa Dakar matin moo fi nekkoon après Dakar matin moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy papu euh, journal Le Soleil journal Le Soleil boo gisee ñu ci bëri dañ doon dow sport parce que dañ ne daal sport daal kii la daal doo jàng ba pare jàng ba ne ar ah, bu nga dem di naan da def sport di kii yooyu Pape Diouf moo tax ba journaliste yu bëri ñoom ñu nekk ay journaliste sportif opté pour sport kon nag mu noonu lu tax parce que et puis Pape Diouf il faut que ñu rappeler benn affaire le premier journal avant que gis nga ay stade yi ngay gis journal stade journal euh, record moo njëkk a créé fii ab journal sportif mooy le le quotidien le sportif moom moo ko njëkk a créé moo doon bi ñu doon lancé Sénégal 92 moom moo ko moom moo lancé le journal le sportif ñu ci bare bind nañu ci journal boobu ci foofu la ñu bare euh, kii journal boo gisee après jour le quotidien sportif bi mu demee bi mu disparaître euh, journal Le Soleil euh, inspiré wu ci Pape Diouf ba créé zone de xaw ma ndax yéen a ngi koy rappelé journal sportif zone 2 lañ ko doon tuddee <clears throat> kon nga xam ne Pape Diouf mu nekk koo xam ne euh, kii la parce que euh, Pape Diouf avant que muy ñëw di créer loolu yëpp Pape Diouf dafa am dafa jaar am ci journalisme tey dañu naan sportif ñoo kii mais journaliste yi tamit ñoo perte parce que Pape Diouf nekkoon na en France euh, gis nga yëpp. li nekk ci journal ci journal euh, service yi ci nekk yëpp Pape Diouf nekk na pigiste Pape Diouf nekk na correcteur correcteur Pape Diouf nekk na euh, journaliste normal Pape Diouf nekk na lépp ba pare nag euh, mu dugg ci football ñu bare boo gisee mu nekk agent a nekkoon agent de joueur xam nga agent de joueur la ko gars yi gën a xam que sax Olympique de Marseille agent de joueur Antoine Bell Antoine Bell moom moo nekkoon agent am ah doo dégg waaw Antoine Bell Habib Beye Didier Drogba avant muy dem ci Thierno Seydi moom mi la moom moo koy gis nga gis nga gis nga agent des joueurs africains yi ngay gis yëpp ci moom la ñu inspiré wu. ñoom Thierno Seydi ñoom ñëpp ñi nekk tey agent des joueurs di jaay ay joueurs dañoo jaar ci loxo Pape Diouf Pape Diouf euh, moom da leen doon tette da leen doon wax. ne leen nii la ñuy def nii boobu bëggee nekk agent du joueur yow nii wan leen yoon bi au nom de iñaan iñaan ci benn côté ba en 2000 bi Marseille toogee après euh, Bernard Tapie Marseille toog amatul dara Marseille gagnatul benn président ñëw mooy euh, Louis Dreyfus ñëw confier ko présidence bi Marseille commence di gagner mooy ñoom Habib Marseille commencé ak ñoom Mamadou Niang équipe bi commencé di gagné nag titre bi ñëwaat kookoy Pape Diouf diggante 2000 ak ba bi muy euh, kii bàyyi bi Dreyfus génnee àdduna moom tam moom mu bàyyi dégg nga euh, Pape Diouf euh, monument la en France monument la de boo gisee xoolal xam lan ma lay wax ne monument la gis nga journal l'équipe mhm. <laughs> c'est pas n'importe qui la ñu à la une seen titre seen titre bi voilà tu as vu. Mm-hmm, surtout titre <laughs> du coomare. boo gisee ñu jël kooku teg ko noonu titre bi moom kese nii. nga ndamaam titre. Mm-hmm. nga xam ne kon kii am na loo xam ne liggéey ne ko ci wàll football. Mm-hmm. en France. c'est un homme respecté. buy wax parce que moom buy wax waxam dañ koy bàyyi xel. bu yi xam ne eh, am na loo xam ne ñu bari dañ koy fàtte. Mm. Bruno Metsu dem si yàlla naka la ñëwee Sénégal Pape Diouf moo ko conseillé El Hadj Malick Sy moo dox dox bi Souré mu ngi dégg wala ku may dégg Pape Diouf moo dox dox bi alors que moment boobu kenn bëgguloon euh, Bruno Metsu xam nga boobu Bruno Metsu xam nga lañ ko dàqee woon mm-hmm. Guinée nekk entraîneur na gars yi dàqee ko kenn bëggu ko mais moom moo ko conseil mu ne jël leen kii c'est lui Pape Diouf ànd sax ñuy wax ne sax néew ma de foofu duma ma mais ay waxu suuf la mais nee nañu Aliou Cissé mii sax mii moom moo moo moo moo moo moo moo gars yi pour gars yi jël ko fal ko parce que benn benn benn benn anecdote bu ndaw rek bu may mujjee wax ak moom ñu daje ñuy kii ñuy waxtaan ba siyaaga mu ne ma euh, <coughs> mu wax ma ba saa mu ne ma lenn am na loo xam ne saa yoo ko waxee ma d'accord ak yow waaye ñu bari duñ ko d'accord ak yow xam nga mooy lan moom mooy ñun gañaguñu dara ci football. Mm-hmm. mu ne ma foofu Cheikh Tidiane foofu d'accord naa ak yow. tu es incompris tu da nga nekk nit koo xam ne booy wax ni ngay waxee parce que wax bi ngay wax dafa cru yow da wala bu gars yi di kii yow da ngay wax wax boo xam ne day blessé wax boobu nag c'est ton yooyu wax yooyu kon <coughs> euh, ñu ci bare ñoo xam ne euh, kii entraîneur yu bare yoo xam ni ngi Afrique mm-hmm. nekk ay entraîneur mm-hmm. moom mi bokk na ci ñu leen di conseiller mm-hmm. jël leen diw am na ñoo xam ne parce que il est direct temps yëpp gis ngeen temps yi avant muy kii ne temps yëpp gis ngeen ki mu euh, kii Ahmad Ahmad président CAF d'accordul ak moom ni mu doon man xam man d'accord ma ak euh, Ahmad Ahmad mm-hmm. parce que Ahmad Ahmad ni mu doon doxe moom Pape bu ngi nii dégg tu as nga titre bi titre bii moo lay war na l'équipe notre pape est mort xoolal notre notre xoolal il faut que ñu xool euh, xool kii bi phrase bi bu ba notre c'est un euh, c'est un quotidien français un journal français mu ne notre adjectif possessif tu as vu notre man bi ma gisee notre bi rek sama yaram dafa daw notre bi ma seen titre bu kañ ça a été repris par tout le monde. pourtant c'est un Sénégalais. Hmm. nit ku ñuul <laughs> français jëm bu saa ne ko notre ñun. Hmm. suñu pape. suñu pape dee na. Hmm. kon nga xam ne kii am na lu mu def biir France. Olympique de Marseille bu équipe bu ndaw. équipe bu rëy la nga ñëw nekk président premier président noir. xoolal football français. pour nga xool euh, euh, kii. bon man de man de moom laa mën na ne c'est le premier euh, président noir d'un club français ah bokk bokk ci li ma gis mhm. parce que gisuma woon keneen mhm. gisuma woon keneen de léegi léegi la am ay ay ay ay ñoom Eliman laa am mu am ay ñeneen mhm. ñoo nangam waaye moom mi nekk na kii kon dans son euh, euh, tey jii moom euh, kii la exemple la ñun dañuy roy ci moom ñun journaliste sportif yi parce que ku ci nekk da ngay laaj du man kese. journaliste sportif yooyu gis yëpp képp ku ci daje ak Pape Diouf dina la conseiller. am na ñoo xam ne tamit ñu ngi dem euh, eggali seen jàng. ca école de journalisme yu bare surtout bu bu bu bu Marseille. parce que moom foofu moom mooy kii bi moom moo koy gérer moo ko doon gérer ñu bare waaw. démb j'ai suivi euh, Adama Adama Kandé sax. Mm. mi ngi mi ngi mi ngi wax loolu moom autorité bi bi mu nekkoon empêché wu ko fii nii Sénégal mm. journaliste sportif bu ko mënti soxla boo ko woowee rek moom dafay tout temps il est disponible pour wax li nga xamante mooy xalaatam ci lii di sportu Sénégal te ñëpp journaliste sportif yëpp la yemale woon. dafa oyof. Mm-hmm. li nga wax nii dafa oyof Pape Diouf. nekk na koo xam ne gis nga nii nii nii nii bu ñëwee. Mm-hmm. waxtaan ak yow mën na toog waxtaan ak yow pendant xoolal ay ay ay heure man sama premier contact ak moom sama premier contact malheureusement maa ngi doon euh, photo bi sama kër mais aw ma ko mais boo ko amoon day kii sama premier contact ak moom 2002 la woon kan 2002 au Mali ñu toog nii jour boobu ñu ngi toog mu woo moom moo toog noonu ba sax mu ne ma Cheikh Tidiane viens ñëw ñu toog muy wax ak man boobu temps dégg maa ngi woon rajo Dunia. parce que dafa déglu dafa am benn match Sénégal euh, dafa am benn match Sénégal kii Sénégal kii Sénégal non boobu temps Georges Weah mu ngi joué. contre Mali match d'ouverture match boobu euh, benn histoire bu euh, kii man dañoo sàcc sama. boo xam dañ maa tafu sama calpe bi amoon cinq cent et quelques ma tafoo ma ñëw nag léegi direct nag euh, boobu euh, affaire boobu jàpp ma ma ñëw ba di euh, waa dunia. mais bii du Macky Sall <laughs> waaw bi may jël antenne. juste ma ñëw mi-temps à bi may ñëw di toog ñun rek. may jël antenne. Mm-hmm. bi may jël antenne. ante bi sama xelaa ngi nekk sama kii léegi bal bi Georges Weah yore ko di contrôler dugg euh, biir souvent de réparation rek ma yuux bi sànni Georges ya dans les cinq cent mille ay yow di boobu sa xel nga ci cinq cent mille yi sa moom sa waaw ay léegi moom nag bi mu ko déggee nag mu may expliqué euh, journaliste boo nekkee euh, kii boo nekkee à l'antenne da ngay moytu maanaam yooyu parce que boo xalaatee len day feeñ ci sa reportage sa reportage booy wax nii comprendre nga nekk direct direct xam ne loo xam direct la nii waaye lu nekk sa xel bu loo ñu naan euh, boo ñëwee direct rek fàttali lépp loo xam ne euh, bokkul ci euh, kii bi ci match bi mu mu koy expliquer mu na ma boo ñëwee ci ni ngay def nan la avant de kii bois de l'eau moom moo ma ko mun na ma booy kii jëlal ndox naanal ndox ba pare boo naanee ndox rek après la yongi kii mm-hmm. yooyu ay ay ay affaire la yoo xam ne moom moo ko doon def kon nag tey jii euh, nous on a perdu mm-hmm. on a perdu Euh, un homme boo xam ne xam naa ne euh, fu mu nekk nii euh, hommage bi nga xam ne français yaa ngi koy kii ñun tamit ñun dañ ko war a hommage foofu sax laa bëgg a ñëw balaa ngay daaneel coach xam nga ci ci ci condition yi nga xamante ni demee na ko ku ne xam na ne instant bi àdduna li ko laal mooy covid 19 ba moom sax loolu moo ko yóbbu yaakaar nga ni hommage bi nga xamante ni réewam war na ko ko war na ko ko delloo laata ñu koy jébbal suñu borom est-ce que xalaat nga ne ci condition yi hommage bi ñu ko war a defal dëgg-dëgg dina mën a nekk. waaw xam nga nag euh, dañuy waxante dëgg. Mm-hmm. fii lii nag fii mooy danger bi mm-hmm. parce que tamit euh, euh, bëgg nañu lool rendre hommage. Mm-hmm. à Pape Diouf. pour ce qu'il a fait noowu Sénégal bu mu jóg. ak jou maanaam mais nag dafa loo xam ne am na. tey jii boo accordé Euh, spécial. Mhm. yoo a ne ko pour rendre ko hommage ñu def kii. Mhm. ñëpp a fay màbb. dëgg sûr ñëpp a fay màbb. Mhm. dañu waxante dëgg. waaw ñëpp a fay màbb xam naa parce am na ñoo xam sax kumpa. ñoo xam ne kumpa